ku yàqu yi toujours dans votre journal people à la présentation Seydina Tandian mu Serigne Saliou lii nag di beneen information boo xamante ni dalul kenn ku dul kii di Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye nag agent la bu nekk foofa ca Teranga Sûreté moom la ñu déféré pour viol si benn mineur boo xamante ni moom la violé il y a deux semaines bu leen fàttee ni que nag Ibrahima Ndiaye boobu nekk agent Teranga Sûreté moom moo nekkoon tête de liste Yewwi Askan bi ci commune Thiaré bi nekk ci jal Dialgui nekk ci département Fatick est responsable communal du PASTEF il est du village de Njili Njilassène kii nag di responsable communal PASTEF maanaam parti Ousmane Sonko ci village wu Njilassène muy Ibrahima Ndiaye di agent de sûreté foofa ca teranga dañ ko defeere lu mu def deful dara lu dul violé benn mineur su doon sax ko am 18 ans wala majeur waaye mineur la violé dafa mel ni daal Pastef moom viol bi moom dafa tàkkarnaasi waaye ku sa njiit di violé yaakaar naa ni aussi responsable communal bi su violé warul jaaxal kenn moom mujj nañ ko defeere sax parce que mineur la violé mais sa patron moom ba léegi nangoogul nee na daal deful en tout cas procès war na am muy euh, viol bi nga xamante ni gis nañ ko ci kii di Ibrahima Ndiaye di agent teranga sûreté moom la ñu defeere pour viol ci mineur il y a deux semaines moo nekk ci tëttu listu Yewwi Askan bi bi ñu jógee ci élection yi passé ci commune Thiaré nekk ci jal gi nekk ci département Fatick en même temps moom mooy responsable communalu Pastef foofu ca village u Djilassène